ak xol boo xam ne muumin la ak xol boo xam ne wuddaani la xol boo xam ne dafa wow mooy xol yi ñuy fari yëg njëñ àddina muumin seen xol dara du ko dalal lu may àddina rek warabu bil xayaati dunya watma'annu biha ñooñu àdduna mooy dalal seen xel ñoom tumaani na luñ ko amee lu muy ci rek ndax seen xol dafa wow xol boo xam ne naafin la mooy fa nasiya walam najid lahu hasnan kooku tawbatu dalay xam ne tumaa yetu fastabihu rabbuhu fataba alayhi hada te yàlla ne wala xaraxay naa ila aadama min qablu fa nasiya walam najid lahu azman wax na gannaaw ba ne fastabihu foo xam ne dafa fàtte woon itam fa juum na falam dootu am tumaa yetu loolu ba tax ne tawbatu ba xolam ñaareel baa ngoo bu ñetteel nag mooy xol boo xam ne moomin la alladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dikrillah ala bi dikrillah tatmainu qulub ñooñu ñoom ci tuddee rek seen xol di amee su ma amee natt rek ak xol boo xam nag ne wut daan yi la kooku moom ku lu may ci gis rek mu saadat rek koy may su ma amee nattu mooy la balante yàlla Ibrahima awalam tuuti Ibrahima tontu ne bale walakin na xam ne moom ci gis rek ca la ca la waamee su ma amee nattu àlla si ne ñooñu amadou gëm nañu waam yow tañ jël faale di farata rek naa fi dee su baax taxe loolu ñu ne ma dem woo su ma aduna rafetal delluwaay